فعدلك فسواك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كراما كاتبين الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaw man nag maay Modou Mamoun Touré waaw bokk ci famille bi doomi sëñ Modou Khadim Touré mbooloo mi nag féetale ma fii ci njàngum alxuraan mi maak mbokki dong yeeg sëriñ daara yeeg ak doomi soxna yi fi daje yépp ñun fii ci alxuraan ji lañ ñu féetaloo moom lañ ko ubbee waaw li tax ñu koy ubbee nag alxuraan bi sun bi bi sun boroom ne saalikal kitaab laa rayba fii xuddan xuddan googu ginnaaw moom la ñëpp di bëgg moo tax ca mbokk gi yëpp xuddant rek ak jub rek leen bëgg ci gone yeeg ñëpp moo tax bu ñu ñëwee fii ubbee ko alxuraan ñaanal mag ñi nga xam ci alxuraan lañ daan dundu ba ñoom ñëpp tëdd fii moo tax saa bu ñu ñëwee bala ñoo def dara ci liggéey bi nu fi dajale ñu ubbee ko alxuraan ñaanal mag ñi ñaan jàmm ci dëkk bi ñaan ko ci réew mi ñaan ko ci waa dëkk bi ñëpp waaw loolu daal mooy solos daje fii ci jàkka ji di jàng alxuraan saa bu fi daje at mu jot noonu la ñuy def ñaan ci nawet bi jàmm suñu borom mottali lépp ci jàmm waaw képp ku bokk ci njaboot gi ñaan la foo mën a nekk suñu borom saxal la ci ak jub ak listiqaama ju mat sëkk rek te ñaan mbooloo gi mbooloo mbokk mi yëpp dara bañ cee dugg di ko tas wala mu koy yàq loolu daal fu ñu toll ñu ngi ko fiy ñaan saa bu ñu fi dajee loolu la ñuy jiital ci ci ndaje bi lu cay topp rek door caa topp. fi nekk nii eh, yaakaar naa lim bi noppeegun waaye amagun nan fukki kaamil ak juróom waa foofu lan toll ci waxtu daanaka midi bi mu tegee daal waaw ci kanamee nag yaakaar naa danañ ci danañ ci nekk fas yéene ba une jot wala tisbaar di bëgg jot foofu daal lañ ci toll ñaan yàlla suñu borom képp koo xam ne daal foo mën a nekk ci mbokk rek nga liggéey bi nga xamee ko noonu ñu jàppee ko noonu waaw foo mën a nekk rek mën nga cee bokk. boole nañ ci ñëpp mbokki Mbakol yi yëpp képp ku aju ci Touré ak ci foo noo ci mën a ajoo rek ci ci Lappé ak ci Mbakol boole nañ la ci liggéey bi te di la ci woo foo foo mën a nekk waaw. moom daal noonu lañ ko fas yéene mi ngi ko tàmbaleeg léegi atum 2005 la yaakaar naa boobaag léegi mën na fukki at ak ñett wala fukki at ak ñeent ci ren fas yéene nan di ko saxal ba faw ba ci suñu doom ba ci suñu sët ak suñu rakk yi sax fi nekk ñu ngi ñu ci bëgg aw ñun ñi nga ñoo ko tàmbale waaw loolu daal ban tàmbalee ba léegi ci loolu la ñu nekk man nag fii leen ma féetale maa ngi sant ñëpp rek bokk yëpp te naa yéene man ubaar woowu daal li ma ci man sama kéem lay kàttan du ma ko booyal bu soobee yàlla waaw ñu ngi sant ñëpp ci ñaanal ñëpp jàmm ñaanal kilifa yi lislaam bi yëpp tàmbale ko ci sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassir di xalifa ak mbokkam yëpp di rakkam ak sëtam yi ak doomam yi asalaamaaleykum yéen bokki taaliba yi yéen bokki jullit yi ñun askanu lappe bi nga xaay noo askanoo ci Moustapha Touré ma ma bàyyi ko woon Mauritanie ñëw fii ku ñuy wax sëñ jeere dalal ko ba mu ko dalalee maanaam ba mu ñëwee dafa fekk ñu dem tool mu dem ci daara ji bind àll bay dongo yëpp bi sëñ jeere ñëwee xool mbind mi ñu ne ko ah yow da am gan mu daal di ñëw xool gan gi yéemu ci lool mu nekk fa ab diir mu daal di ko may ku ñuy wax Oumane Dieng fekk Oumane Dieng ab lampoñ la bi mu ko ko mayee mu am fa ab diir mu wan weer léegi mu daal di ko ne léegi man maa ngi dellu Mauritanie waaye Oumane Dieng mii bu yàlla dogalee mu yewiku tamit góor nañ ko tuddee yonent bi sallallahu bu dee jigéen nañ ko tuddee Fatimata Bintu ba li ëpp ci nun ku ci taalu mus yonent bi sallallahu alayhi wa lañ lay tuddee ba mu ko defee Umaana jang bi mu ko koy laataa bi mu ko koy bëgg a may muy jooy ne ko man sama baay kii mi ngi xees pecc soo ma ko mayee su ma ci amee doom mu xees ñu di ma ko reetaanee Moussa Touré ne ko boo ci amee doom yàlla na ñuul moo waral ñuulaay bi ci wàll waaye kon ñëpp ay naar yu xees pecc lañuy doon ba mu ko defee mu daal di dellu Murtani mu daal di fa bàyyi mu am doom mu tuddee ko Moustapha Touré mooy maami waa Lappe ñëpp ku sant Touré ci moom ngay askanoo ci moom nga bàyyi ko mooy Moustapha Touré moom muy di sunu maam léegi mu daal di ñëw sanc fi ñu wax Lappe Lappe la dëkk bi léegi ci. ci maam Muxtaar ma ko gis say wax na ma ne ma bi ma koy wax mi ngi ci juróom benn téeméeri at ak juróom ñaar fukk te boobaak léegi war naa mat fanweeri at kon dëkk bi am na juróom ñaar téeméeri at gentoon na bañ ba raat ñu ñëw dekk li ko loolu mooy tax sët yi nga xay dañoo askanoo ci lappe di fi daje ndaje mii ñu di ko def ndaje bi ñu koy def boobaak léegi war naa toll ci fukki at yàlla dimbali ci lool ban am ci ay jàppandal ndax biñ ko jëkkee di def ay njaga njaay lañ luyee di ko puus ba mu ñëw fii léegi si tey yàlla dogal na yàlla def na xéewal jàmm ba tey bi li teemu agsi ci penc bi ëpput fanweeri mètre lépp ci baaxu mag ñu baax ñu fi nekkan di ay kilifa yu fi nekkan sëñ Abdou Latif Mbacké nga xam ne nii fii la bokk soxna Fatim Mor mi nga xay mooy waajuram mook sunu ma sunu sunu waajur ñoo bokk bàyyi sëñ Sidi Mokhtar ñëwati sanc fi doon jëmu ju yéemu jooxaay fi mu teg lappeek amut ab yemukaay ba tax noonu sët yi nga xay ni noo fi nekk bëgg a dundalaat loole at mu jot nu dafi daje dafi def ay waxtaan ginnaaw bu loolu jale na képp koo xaay yaa ngi bokk ci cosaanoo ci dëkk bii yaa xam foo mën a bokk ak noo mën a sant noo ngi bëgg bis bi nga di ci teew di ci jàpp ndax bëgg nañ fay def menn mbaar moo xam ne nii gone yi biñ defee étude bi 3 millions la te fas nañ ko yéenee taxawal fas nañ ko yéenee taxawal defar ko ba mu méngoog jamono waaye yàlla mi may kattan may nag gone yi fi nekk bañ miir ko ba mel na mu war a mel noonee ñu def loolee ni lañ bëgg a def dëkk bi bëgg nañ daal lépp loo xam ne nii li avancé ab dëkk la ak lu koy dundal ci waay man dana ko ci def. salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di jiital nuyu bu suñu xalifa bi toog muy sëñ Aas di ak sëñ Xaadim ak sëñ Cheikh Touré ak sëñ daam Touré ak sëñ sëñ Dame Jaxate da war a sant da war a sant Touré benn yoon ba ëllëg rek ba beneen yoon ñu ñëw nag ci waxtaan yi liggéey bi ñi nga xam ne moom lañ def yaakaar naa léegi mu dem fukki at ak juróom ki tolluwaay bi fu mu toll ak li ci mbokk yi di daj ñu ngi toog nag koo xamante ni wax dëgg yàlla mbooloo mépp mun mbooloo mépp amee nañ ko njukkal muy sëñ Xaadim suñu xaadim mi mu daj ci ndaje mi bëriwut ku ko ci daj ndax dana jël alalam dana jël temps taal otoom fu ñu fuñ nañ dem rek ñun ñoo ko yàggal bañ dajee sas ndaje ba tey mës sa dara wax dëgg nag mbooloo mi amal nañ ko njukkal moog suñu ab laat ñu leen bu baax di leen gërëm ndax seen taxawaay daal mënu fee raw moom laa gis kenn koo xam du taate benn yoon réunion saa yoo ko waxee réunion rek moom fu dudul jam ci ñëw waaye comme mën dem jëlee dale jëli loolu nag mbooloo mépp yëg nañ ko ñu ngi ci sant bu baax di la ñaanal yàlla yàlla yàlla defal la fan wu gudd defal la wér-gu-yaram defal la xéewal yu bëree bëri ndax wax dëgg nag taxaw nga euh, taxaw nga taxaw nga askan wi ndax euh, ndax fonk na ko ñor na ko ne ko suñu waxee nii fonk na ko ñor na ko ndax lim lim ci daj daal bëriwut ko ko ci daj dëgg-dëgg kon nag ñu ngi koy sant baax gërëm di ñu bëree bëri nag dañ doon xam li xew ndax dañ yaakaar ne juróomi fan yu njëkk yi dong fan yi dong la waaye at mi yëpp dañ koy liggéey li tax mu agsi fii du ay caaxaan ab liggéey bu mag a mag mag moo tax mu yëfi agsi fii liñ ci daj daal am na loo xamante ni bu leen ko buñ ko waxoon niñ sax dañ naan jarul leen ko waaye nag ñun mbokk jaral nañu ko liggéey lislaam jaral nañu ko liggéeyal mag ñi jaral nañu ko kon ñu jox suñu aas mu nuyoo ñu doog jox suñu aas rek jim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen ak seen sant te leen xamal ne ndaje mii kat ah, nii ñu ko biñ ko sosee ba ni mu egsee fii mu egsi ne leen leer ne du ay caaxaan ndax boobu ba léegi bañ ko see ba léegi ñi nga xam ne ñoo ko encadré musuñu cee noppi musuñu cee tàyyi te it fu mu yegg mën naa ne ñoo ko fa yeggale muy diggante maam Bala ñoom ak Xaarim Ture ñoom ñi toog ak ñeneen ñi nga xam ne tooguñu te te nekk fi ci bokk ci ci bokk ci askan wi kon nag ndaje war nañ koo gën a fonkaat te gën koo jàppaat te xam ne nun buñ ko defee def loo xam ne mooy la mag ñi bëggoon ànd boole suñ bopp doon benn ah léegi nag man dama mënta wax moo tax ma jox kàddu gi xaar yi mu eggale wax ji wasalaam ahasubillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi ali asim maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp nuyu sëñ Axma Mbàkke suñ Lappe sëñ Maam Balla sëñ Aas sëñ Seex Ture sëñ Daam Jaxate Cheikh sëñ Cheikh te it mbirum daayira li koy doxal mooy ku ne yaakaar kenn ku nekk yaakaar ne yaa ko moom maanaam kenn bañ ko moomele kenn ndax toujours mbirum nit ku ñu li koy sonal mooy jàpp ne ay nit a moom yow ab jaamur nga ci mbir mi dul kenn moom mbirum famille Touré la mbirum lappe la kon kenn moomu ko kenn ku nekk rek noo ci duggee rek nga ci accès kenn du na la yemal fii kenn amul droit di la yemaloo fenn kenn ku nekk yaa ci dox sa positif bopp ak li li nga ci man donc comme mbirum mbokk la te léegi lii indi na dox mbokk goo xam ne yow soxlaatul ngay seeti nit dimaas këram saa bu ngeen dajee rek ku gëj a gis sa morom gis ko nga am li ngay natt ngeen joxe ko loolu ndimbal la ci doxu mbokk te dana yombal ndaje bu accès kon loolu war nañ koo leeral ba ñëpp xam ko su ko defee mbaar mi xam ne si leen jëm si dañ ne dañuy wut ay nit ñoo xam ne mën nañ ko ñu joxe cinq cent mille cinq cent mille bu ñu amee lu man ñeenti muy deux millions léegi deux millions des ñu wut ñeneen ñoo xam ne danañ man lu mu néew ne cent mille francs mu am ci mat fukki nit ña ca toppaat lañ man bu ko defee loolu balaa déwén ak jàmm incha allah ñu mën a taxawal mbaar mi loolu mooy engagement bi nga xam ne si moom lañ jël bu ko defee matériel yi ñu fa soxla ak yëpp man ko am balaa ndaje di amati loolu laa bëggoon ne daa ko wax ñu nga xam ne loolu daal mooy doxin bi xam ne si ñu ngi ci toll nit nag buy dox di yokku bu gënee yokk mën naa gën a yokk te loolu moom lañuy ñuy ñaan di ñaanal ñëpp xéewal yàlla defal ñu ko defal ñu xéewal yu bari nawet nawet bu egg ak jàmm dañ jëriñoo ko barke si barke si Abdou Khadir Mbacke barke Sëñ Touba jërë ngeen jëf. ñu sant bu baax a baax ndax moom mooy président bi lim ci daj bëriwul ñu ko ci daj wax dëgg nag moom jàmbaar la ci lool ni mu soññee rek moom foofu la nekk. te itam li mu wax am njàngat mu rëy ca bokkul woon ca départ ba waaye loolu daa demee ci ba bokk ci njiite loolu pësteef la yàlla na yàlla dolli say xéewal dolli xéewal ñëpp gannaaw bu loolu wéyee nag dañoo bëgg a waxtaan ci askan wi askan wi nag dañoo am ñaar ñoo xamante ni ay professeur la ñoo xamante ni moom liñ ci xam bëriwul ñu ko ci xam <laughs> muy sëñ ma Touré ak sëñ Alaaji Le Sam kon ñu jox kàddu gi sëñ ma mu leeral ñu Touré gi ni mu demee ak lim ci xam moom bëriwul ñu ko ci xam. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi di pencum lappe di leen sant bu baax tey ndokkeel ñëpp ci jataay yi di nuyu kilifa yi fi teew yëpp bàyyiwuma kenn di am mbégte lool tam ci e, fekke lu mel nii ndax day jëf ju am solo e, jëf la joo xam ne sunna la mën naa ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxaamakum na ngeen xam lu ci seenu bokk lu ngeen mën a jokke seen bokk ndax nit koo bokkul koo xamul lu ngeen bokk doo xam àq ja a kes seen diggante te nit ku nekk ak sa mbokk àq ja nga ko ameel maa nga toll ne la leen boole kon boo ko xam ko am na solo lool rawatin nag bokk goo xam ne mboolem nit ñu baax ñëpp seede nañu ne ci diine lañ mos a nekk xamuñu ceddo ceddo li ma jullu mooy euh, lu jooyoog diine ci jikko wala ci leneen xamuñu ko diine rek lañ mos a xam ci lañ mos dund fu ñu mës a nekk itam fu ñu mës a nekk loolu rek lañ fay dundal fu ñu mës a sanc itam rawale seen diine rek a tax ñu sanc ko li penc yi di bari bari bari penc yu mu ci doon rawale seen diine ngir bëgg jaamu yàlla na mu ko waree waaye mu ànd ak jomi liggéey ak fullay téye ko loolu rek moo tax fu ñu mës a sanc loolu rek tax ñu sanc ko muy askanu Touré yi ñuy wax askan woo xam ne nag bu ñu demee ci histoire eh, xamuñu ku gën a wala boog yi mooy delluwaay yi gën a rëy am solo bokk na ci ku ñuy wax Ibnu Khaldun Ibnu doon xanaa ñëpp xam nañ ko soo demee ci téereem ba ma ngay wax ne mu ñëw ba Mali ba Afrique di seet sant yi bi ñëwee ci Touré lam fa wax mooy ñii nag ñoo nekkoon ahlu na kon loolu moo nekkoon waxi Ibnu Khaldun ne turé-turé yi ñoom nit yi sunna lañ dañoo ngoy ci diine lii yenn askan yi daan dugg lépp ñoom dawuñ ci bokk ñoom mos naka jekk dañoo mos a ci diine tey loolu am na lu koy dëggal ci buñ delloo ci culture Mali rek ndax foofu lañ jaare am na ñu jaare foofu buñ jógee ci kaw tam ndax boo demee boo nuyoo dañaa la turé mandi moori moori ci bambara mooy sëriñ kon ñoom fu ñu nee monsieur bu leen turee rek ñu ne yow Mandi Mori mooy ab ay sëriñ ngeen ni ci diine ngeen kon loolu nag sëriñ Mbacke sëriñ Moulay Bousso sëriñ Moulay Bousso wax na mel noonu ndax bi muy marsiya ku baax di sëriñ Mor Fati bi mu koy marsiya dafa wax ne sulaalata saadaatil kiraami ajillatin suraatin hudaatin montamina ila gurri dana ñii seenu càll la sëriñ Moulay Bousso moo wax loolu seenu càlla la ñoom waa Touré gi ñu tedd lañ ñu màgg lañ euh, te jub waaye ñi nga askanoo nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu mulaay nag koy buy wax kon la muy wax xam na ko kon silsile bi am nañu ko am euh, sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moom kenn wéranti wu nañu ay ay sërif lañ waaye bi muy wax ci ba demee téeru irwaaw na dimb Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana dafay wax ne aali Mody la ca gàdd gu nekk ci gànnaar nee ñoom ñooy seeni dooma bàyyi ñooñu itam nag ñooy mbokki ma maami waaturi yi kon loolu dafay dëggal na ay surafaaw lañ ay sërif lañ xàqan ñi ngi ci liggéey sax xëy na dañ mas a gis silsile bi normal man ko topp bu baax a baax incha allah askan wu mel noonu nag nga xam ne kon euh, léppam diine la loolu rek mu nit fii loolu da koy dëggal encore ndax bi nga xam ne euh, maam Moustapha daan na ñëw fii di dalak maa gànnaxuma daan ñëw di dem at yu mujj yi mu xaw a euh, galfan xam nga mag moom moom am na loxo yi mag mënu ko diggante feeg murtani ci jamono boobu xam nga dox bi gëléem boobu loolu gone ko man ko dese kattan dara waaye waaye mag mënu ko ci yoon yu mujj yi nag fekk ne maagaan joxoon na ko ab jarbaatam ko mm, umaane jeng moomu léegi nag bi yoon yu mujj wi nag fekk soxna si wanu lor te xamoon ne du mën a siwaat ci la dénkaane woon nag ne euh, kon su fekkee suñu borom may na ko euh, jàmm bu dee góor nañ ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee jigéen ñu tuddee ko sayyidatuna Fatima radiyallahu anha yàlla dogal nag ba mu demee moom Moustapha euh, soxna Oumar Dieng moom mucc yàlla def doom ji di góor ñu tuddee ko yonent bi la alayhi wa sallam di ko woy Muxtaar di ko dàkkante la ci ndeyam ñu naa ko Muxtaar Oumane. Muxtaar yi moom nag kon moom rek la fi naar bu bàyyi woon. doontoon naar bu ñuul wala ay ni ñu koy waxee loonu ko woon shérif bu xong coy la woon waaye nag bi muy dem nag mbokk yi am luñ ko waxoon nee nañ ko ñun de jaaxal nañ ndax yaa ngi dem mais kii su léegi boo tuut euh, dana génn xet ndax dina mel. Euh, ci euh, ab melokaan woo xam ne mbootu dana wuteeg li fi xew ndax fii ay nit ñu ñuul lañ ci bu juddoo xees loolu day day olof moom kum xamul rek xamula ci la waxoon ne rek maa ngi ñaan kon ci barke bi yonent bi bu gane àdduna mu nuru yaayam mooy mu ñuul loolu la yàlla dogal bi mu gane àdduna tam mu nuru yaayam ñuul waaye deret day topp deret moom day loo xam ne dafa am solo bi mu xamee bi nga xamee ne nag Eh, gañee na àdduna ba dëgër bi mu dëgëree la newoon ci maam mi rek ne moo ne ci moom ba léegi mooy lan seet fan lay dem wane fa jomam ak ngorom ak diineem looloo tax du toogul kër nijaayam ne moom na faa toog booba waaye toogu fa mu ñëw sanc si dëkk bii dëkk bi di lappe moom Mokhtar Omané dëkk bii nag Mokhtar moomu nag moom mooy maami ñëpp Mokhtar moomu nag eh, moo jur Balla Xujja Balla Xujja moom moo jur tam ma xujja ak saa xujja ak ma demba xujja euh, ñii bokk nañ ci ay doom waaye dangay gis ne tam ma xujja moom mooy rek kër ma xujja daanaka ndax mooy moo jur mbondu asta moo ndax sa moo jur Balla Ndiora ak eh, ki nga xam ne mooy ma xujj mii nga xam mooy ma xujj maram dañ dañ rob ko fii ci kër ma xujj mu sañ ci kër ma xujj Balla xujj moomu nag moom mën nañ ne mooy lap moo des di lappe ba léegi daanaka ndax moo jur Mouhamadou Amina sëñ Modou Amina moomu nag daanaka mooy maami ñii ñëpp Modou Amina ndax moo jur Maxtaar Maram jur Balla Maram jur Modou Maram jur Ablaye Maram Ablaye Maram Euh, moom moo moom xam ngeen ko bu baax Ablaye Maram moo jur euh, euh, sëñ Mor Fati ak sëñ la ñoom dégg nga waaye tam sëñ Maxtaar Maram ñu ak si Muuru Maram mooy waa suupa waa fële ki daaw ful sëñ Maxtaar Maram ñoom ñii mooy yéen ñii sëñ Balla Yaasin ñoom ak sëñ Muuru Yaasin seen maam ñoom ñi ngi fii sax dégg nga ba ci mm, wet googu ñooñu ñooñu ñu kon foofu loolu demee waaye li ma ci bëgg a wax tey waxtaan bi du ma wax sax xëy na ci mbokk gi mel noonu waaye dinaa ci wax rek tuuti ci ne eh, loolu ñu garde woon gisa nga li ngeen def nii dafa am solo ndax dafa bokk ci eh, sàmm wëllëre ku ñu wax docteur Sahat al Jundi al amin al amin al am eh, li majlis al ulya li suuni diin li suuni islami fii Misra ku ñu wax moom moo nekkoon secrétaire national. ci haut conseil des affaires religieuses ci misra borom xam-xam bu mag la nee nit ki dafa war a am kóllëre ak démbam ndax nee na man laa maadiya la laa mustaqbala la ko amul démb doo sa tay du rafet sa avenir du am avenir surtout fi nit ñi nit ñi fi jamono bi toll léegi ñu war a xam mm, yow yaay kan foo bokk lu sa maam xamoon nga jël am référence mooy tax nga mën a nit sa sa sa avenir mën a xam fi ngay fi ngay jublu si loolu nag euh, taamu gi ñu tàmm ci diine ak ngor ak baax gi loolu waral rek euh, euh, bi mambal Balla Aïssa dikkee parce que Mame Balla Aïssa ci doomi Mame Maram yi mën nañu moo fi njëkk a euh, dëgg la Ahmadou Farimata ñëwoon na fi bi bi bi ñu bi ñu bi ñu sancee bi ñu sancee Mbàkke waaye Mame Maram moom dëkk fi woon waaye ki fi gën a yàgg dëgg dëgg gën fi mooy Mame Balla Aïssa looloo waral sax Mbàkke Balla ji Mbàkke Balla ji moom la jógee kon Mame Balla moom nag. Euh, bi mu dikkee moom it moo xam ne fii ñi moo ci gis-gisam mooy ñim fi war a gën a mën a jaxasool mooy waa yi moo njëkk jël doomam moom moom moom moom moo njëkk doo jël doomam bu ñuy wax Balla Fati Balla Suxra dafa amoon ñaari Fati Balla nag amoon na Fati Balla Suxra bu ndaw Fati Balla bu ndaw ak Fati Balla Kubra mooy Fati Balla bu mag Fati Balla bu mag bi moo yaay Sëñ Mbàkke bu sax Fati Balla Suxra bi moo di amini mii ma la wax ne mooy taw Balla Xujja moom la ko joxoon waaye di ku amoon barke. sëñ Modou Amine moom sa maam bari woon barke lool lool lool lool mi ngi ci barab yii euh, àggoon nañ ci ne sëñ Modou Faty mosoon nañ ko wax ne ko sëñ Modou Faty ak ni barke bi bari na ko xanaa tur yaa ma ne aaw Modou Amine képp mopp barke mu ne ab aawam dong mopp barke kooku nag sëñ Maam Balla moom nag jël doomam ju Faty Balla Soxra jooju jël ko jox ko euh, maam Modou Amine moom yi am ci benn doom muy jëtture kooku la sëriñ tubaa njëkk a ko ci këram kër sëñ Tuubaa soxna jaa fa jiitu moo fa njëkk yàlla dogal na itam moo jurub taawam waaye yëmu ci sëñ Mor Anta Sali itam bi mu dikkee noonu la def noonu loolu loolu yooyu la xeeñ ci moom itam moom itam dafa jël ab taawam dafa jël taawu Modou Amina dafa jël taawu Modou Amina mooy mooy jàtture moom jox ko sëñ Tuubaa moo defoon loolu moom Mor Anta Sali moo defoon waaye jël ab taawam moom joxaat doom yi Modou Amina muy Abdoulaye kon moo moo am sëñ Mor Faty ñoom ak muy soxna Faty Anta soxna Faty xam ne taawu Maam Mor Anta taawu taawu Maam Mor Anta Sali mu xam ne góor ak ñëpp moo ci mag fii lañ ko indi mu am ci sëñ Mor Faty loolu mi ngi mooy dox ba léegi si suñ kër yi boo kër goo ci dem fekk fi njabootu sëñ Touba gi ñoo xalaatoon loolu ba ba ni sëñ Touba ji ko jël itam jël soxna su ko fi loolu lépp lu yàgg la woon lu ñu doon dox askan wu mel noonu nag euh, bu ci nit bokkee nga xam ne ñëpp lu ñu leen xameel démb ba tey mooy ngor ak diine ak bëgg lu baax euh, fasanteeg wëllëre ak ñoom ba liñ fi jëmbatoon sanc fi ci ay dëkk ci ay pénc te pénc yëpp lislaam rek tax war na kóllëre googu ñu di ko jiim a saxal ci pénc bu nekk ñu xam ña sancoon lañ doon dundu ak ñan lañ ñu fexe bay jël ay référence ñooña loolu moom liggéey bu am solo la pénc li ñuy bari bari lépp fi mooy cosaan li du daa du kër Malick du Daaru Touré du kër Maxuja du kër yi foofu penc yëpp kër maa dembaak fépp fii mooy cosaan li fu ci nekk borom lam fay lam fa lam fa la fa ka fa sanc itam la tax fa sanc ko mooy yaatal rek mooy yaatal kon boog noonu tam ne ko mambala mambala euh, noonu la ko euh, këri diini fi nekkoon moo xam silla lañ sant wala jaane wala xumma wala jaxate ñoom ñëpp ku ci nekk itam ñëwoon nga fi wut si wut si fii barke ci soxna soo fi jël yobbu sa kër ngir am ci barke. ko fi gis ci ñooñu kër goo fi dem ci kër yooyu ma la wax kër goo fi dem mag ma ka ko ka ko fi ne euh, euh, Masata Binta Dun Binta Touré Dun ma ko ma ko jur. Masata Binta Dun mooy moo moo jur sëñ Mudu Asta. mi nga xam ne mooy waajuru soxna fa maam Fatou Dia ak seen sëtu Jaxate ñooñu pour te mewndu ga la fay barke. moom it soxna safa fa jógee fii la jógee dem foofa lépp lu fay barke ci moom la jógee soo demee tay ba noonu foo fi dem ci penc yi ba ci silla silla yii lañ am ci lañ am ci barke ba mu sant luñ ci am lu nekk rek soxnaa jóge fii dem foofa barke ba ñoom lay topp loolu nag lool nag lu jar a bàyyi xel la lu jar a topp la lu jara lu jara lu jara lu jara jox yitte la te itam gisuma ne am na dërëm bu nit bu ngeen di jël yéen di ko dugal fenn fu gën a farata dundal lii amul dërëm bu gën a farata boo xam ne génn ngeen ko financement eh, def ko fu gën a farata fii kon mook lii lu am solo la tey sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu eh, dafa mosa bind ñetti rëdd bind ko sëñ Mourou Mamoun ak sëñ ak sëñ Fallou na leen bëggee ak bëgg sa bopp ak bëgg say bokk na leen leen ci benn. bëgge ak bëgg sa bopp ak bëgg say bokk ñu ne tekk man mi bu ma ko waxee sax dinaa jaaxle sëñ bi neen tànn leen bëgge ñoom ñu ne ko sëñ bi tànnal ñu mu neen tànn leen bëgge nit ki su bëggee lu mu am da koy def ci yoonu yàlla yàlla nangu ko fëlal ko ko delloo ko gisuma nag kon luñ ci def ñun ñii ñëpp suñuy poos lu gën a farata dundal lii nga xam ne mooy cosaani mag ñi te mooy lislaam ju sëkk dundal askan wi ñu xam lañ doon bañ démb ci lu diine bañ ngor bañ ko ñu kon ni di ko bañ di suuxat suñu njaboot ca seen jikko yi defar ya ci mat mën a matal wala ak bëgg lu baax kon boog ñun war nañoo nekk ay nit ñu bëgge ci googu wet kon ni ñuy def rek mooy sant bu baax fekkee amul question bu ñu mën a laaj ñu mën caa tontam ñu ngi leen di gërëm li leen sant rek te xam naa lii daal lu jar a la. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu xaq te di leen baal xaq ci kàddu yi nga xay ne noo bëgg a yëkkati fii te kàddu yi di kàddu yu mbokk di kàddu yu diine di kàddu yu lislaam la koy sababit bokk yu bokk bokk dajaloo fi barab di dundal seenu mbokk ak ña bokk ñëpp ak lañu bokk ak nañu bokke loolu mooy waral bis bii dara lépp li si Ahmadou doon wax lu bokk ci askanu Lappé diggante Lappé mu di ko wax sanc ak dëkk bu mag di penc mi daar ture Kër Mor Anta Bassine Kër Malick Touré kër Maxuja ture kër Mademba Touré ak Càqami Touré ak fañ doon wax Lappe Ndogol ak ture Ndulo ah, ak Touré Mbond ba demee ba ci Touré Yeew ak Touré Faas ak Madina ak Touré Mbang ak Touré ah, Kër yooyu yëpp ñoo bokk men men maam mi askan nag bu yaatoo day tas ndax dañuy wax ne dëkk boo gis génn kër la kër gi mooy nit ki yor na njaboot dembam yàgg mu génn kenn ci kër gi defal ko ki fee kër bu ko defee ñaar ñett léegi kër bàyyi diw lañuy wax boo matee juróomi kër jàpp juróom benn kër ñu dëkk bàyyi diw yooyu nag boo demee fii nag kër nangam dafay bari ak kër bàyyi diw waaye yooyu yëpp barke bu sax talaw moo ko andi loolu njaboot goo xam ne da nga leen jàppit yar leen ci diine yar leen ci lislaam yar leen ci jikko ju rafet ak mën a ànd moo indi nga am sañ-sañ boobu ba boo yore nit ki boo yeggal nga mën a wëlbatiku mën koo jël yóbbu ko fee te du ca teg baat loole lépp nag bëgg gu ñu bëgg ak bokk tas bëgg gu ñu bëgg lislaam tas bëgg gu ñu bëgg doomu aadama jom ji nekk ci moom boo ëllëgee boo kenn gisul keneen ko bokk ci moom gis jom jooju jëm ko roy ci moom ndax suñu bilaat noonu na yett baax na ci nit kat jom ak fulla ak faayida daan na jom moom mooy pousser nit ki fulla dañ ko koy wutal faayida boroom a koy moobal boppam loolu nag mooy lii nga xëy na tey daje na fi kon jom ji dikk na fi fulla ji ñëw na fi faayida boobu sëriñ bi di wax ñëw na fi kon la bokk googu tey xëy na moo tax ñu di fi daje te boo ko dee seet li sëñ Ahmadou waxoon saf mi nga xam ne moo bàyyi ko woon gànnaar bi mu ñëwee ndogal ab dàll buri jeeg moo ko dalal bi mu ko dalalee ci la suma borom dogal mu di fa nekk di fa nekk di xay nekk yorob xaymaam caal ba ba suma borom dogal xiir ko ci ne kii nitu yàlla la ku baax la mu am xalaatu yëkkati dooma may ko kon mag ñi yàgg nañoo tànn te boobu booba dañaan ab dàll buri boo ko dee ci wàllu ko nee na ab ceddu la ndogal ndogal nangam ak nangam waaye téewut loolee ñu nekk mu doon loo xëy nii lañ leen doon askan wi téewut ñu am nañ lu ñu bëgg lu baax loo xam ne ci askan wi bu génnee askan woowu dañ dem ba liggéey ñu xam ne kii li ko li ko bàyyi woon fi mi ngi fi. loolu nag bi nga xëy ne dem na ba am loolu ñu ko suñu ma waxee rek bi mu fi nekkee Moustapha nekk fi ba jóge fi ah maanaam mii sunu suñu borom ndogal mu tollu diggante waaye ba muy dem wax ko moom ko ne ah ñun de nit ku ñuul leen te yow nit ku weex nga te boo demee bàyyi askan wi lii bu jëlee kon suñu askan wi dañuy xeeb te kon moom kenn du ko nawloo kenn du ko teg fen sunu borom dogal nag mooy maa ki ñaan ci kàttanu yàlla ak dara ji yonent bi waxtu boo xamee ne judd na di ñuul mel ni yéen waaye bu dee góor nañ ko tuddee Maxtaar yonent bi alayhi salaatu salaam ay bu dee jigéen nañ ko tuddee Seydina Fatimatu bint Rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu mu amee sunu borom dogal mu tudd di góor ñu defal ko la mu waxoon tudde ko Maxtaar Maxtaar moom mu nag ba mu fa nekk ba jóge fa càq mi la njëkk a sanc càq mi mage na penc mi ñaar téeméeri at ak lu topp mu soog a ñëw fii sanc ko bi mu ko sancee it loolu mu wax askan wi mooy dem tas ndax nit ku bu jabootee ndax loolu loolu mu wax moo dem ba moo dem Mewndu moo di Asta Asta Touré moo dem Mewndu Aminta boo ko dee seet moo dem ba tey ba moo jur ma Samba Aminta kooku ba demee ba ci Ahmadou Marème Balla Syll mi nga xamee ne Marème Balla Syll moom la ko tedd ki da ko woon mu am mu am am caag moom Mouhamadou Yeddaali kon loolu lépp li sëñ bi doon wax ci sëñ Tuubaa fu mu dugg fu ne dafay wut jeexital jeexital jooju moo raw ba dem foofu te boo xoolee astur bi mu demee mu it lam fa am gis nga moo daal moo daal di meññi sëñ Blaat ak sëñ Soyibu ak sëñ Saaliw bu wul ba di ko dikkaat la fi mu jëlaat fii nag ñeneen ba jël na ñoo xamee ni Euh, muy soxna Jatru mi euh, ak ñeneen ñaar maa ngi bëgg a fàtte seen tur sax euh, ñoom ci kër maam ngi tey ba Touré fa la ñu mujjee dëkk waaye ñoom sunu borom joxu leen fi ay bant waaye kon soxna Jatru moo jur soxna Fatou Diop mi sëriñ bi kon sëriñ bi dafa xoolan pour lu baax ne mbom ne ñokkat mu xool loola ñooñee ñu xam ne fa ñu bokk ak la ñu nekk moo moo dox ba sëriñ bi am ci xëymam téyëf ba wëlbatiku boo demee tey ba ca ñett la fa jël ñu bokk bàyyi ci Taïba Dakar boo dikkee tey Taïba xay kër Sëñ Bamba si liggéey ndax Bamba Astou la ak Bamba Faxu Ja kii mu fopp Marème Mbale Sylla ak sil ak Sylla pem fa jox sëriñ xëri soxna ak soxna xëri Mbar ñee ñooy waajur soxna May ñii di kee di waajur Sëñ Abdou Samad Taïba xay kii di waajur moom Mouhamadou Yeddaali mi nga xam ne moom ma soxna Marème Mbale Sylla mi ko meññi boo demee kër a Sylla ci armée la ma nga nit ki jamono ju toogee fa mu toog nanguwul a seeti kenn kenn seet si wu ko wala mu yëg boppam wala mu am nu mu doxee boobaa day xam ne moom boo xeen defe ne doon dara war naa xam ne doonatul dara ndax jamono joo war a seet sa mbokk war koo ko war si am xam-xam nga dem ba mu yàgg bokk ak ñëpp doo ci xam mu yàgg mel ni kenn xamutul ca yoon wa nga nekkan yaa ko wàcc waaye nit ñi moom fañ kon muy diggante yaari pinc yi ci tënk rek ak kër Maali kër ma ko jë man li ma ci xam suñu objectif mii mu nga xam ne tey sunu boroom dogal na mu nekk ci taxawaay bi taxawaay soxna Faty Mor jur ko soxna Faty Mor nag ak sëñ Mat Sala Touré ñoo bokk ndey ak baay sëñ Mat Sala Touré moomee nag daam Marema ak Matar Marema Matar Marema nag moo leen jur waaye daam Marema nag moo jur sëñ Mokhadou Touré ak sëñ Mokhtar Touré ak ak soxna daam Touré soxna daam Touré nag moo jur sama baay. sëñ Makhoudia Touré nag moo nekk fii bàyyi si mu sa ba tabax ko ba def ko ni bàyyi ci ne fi ak njabootam mu bàyyi wàcc ko bu yàggul rek ak njabootam des fa foofu sëñ Makhoudia Touré mu nekkoon foofu demoon na ci alxuraan ba egg ci balaa nga sa da ngaa dem ba sëñ Makhoudia Touré mu seet ko moom ci jëmam eggoon na ci guddi gu ne naa naafila alxuraan ba mu yegg maa ngi fàttaliku jullit baaw naan ci jamono ji lu mel nii ba mu amee jullit baaw naan koo xamee ne ba mu koy wootee bañ demee ce fee ca xewar jullikaay booba juróomi penc yi nga xay moo wër muy la penc mi sanc dëkk bu mag sanc kër Malick kër Moxuja kër Mor ñii ñëpp ba ci kàlla mi ñoom ñëpp ñëw na ci jullit baaw naan gi waaye jullit gu mel noonu keroog laa ko mos a gis keroog laa ko mujj a gis ndax bàqar la tàmbali rakkaab bu njëkk ba rakkaab ñaari ba di Ali Imran waaye nit ñi dem nañ ba toll foo xamee ne kenn ku ne foog ne jant bi wàcc na ba nga yëg tàngaayu yëg ñaq bi ba kenn ku nekk xam na sa diggante sa borom dara jaaratu muy góor muy jigéen kenn ku xalaat lenn lu yàlla amul. ba mu noppee xutba ba mu def daf ko wax ci wax wolof wax joo xam ne noo ngi ñaan yàlla miy sàmm te ku mu sàmm nga sàmm yàlla na mu si yàlla sàmm sàmm suñu njabootu kër gu àll yàlla mi nga xam ne mooy aji musal te ku musal gu mucc yàlla na yàlla musal musal su njabootu kër gu àll yàlla mi aji dimbali te ku mu nga am dimbali noonu yàlla dimbali dimbali su njabootu kër gu àll yàlla fajaa korob aajo te ku mu faj aajo nga xam ne ku ne aajo woon na ko te aajo ba wut kenn yàlla na faj yàlla na yàlla na faj aajoom tabal ko suñu biir ite may na gudd ak waa ak fan gudd ànd wala kattan ak xel ma daal jaamu yàlla gu nangoo teel bi gudd yàqu. ba kii ci laa ko jàngee mokkal ko ba ñaan ko ba ñaan ko ne bala maa bàyyi dinaa ko ba def. daa ci dégg Serigne Touba di wax na ne képp kooku mbokk ñaari mbokk ñoo bu ëllëgee di ngeen gisowaat bu ëllëgee yéen bokk kon loolu muy xam-xam du lu nëbbu di loo xay ni te loola bañ ko defee bañ daataa jóge xewar jël kaay di agsi ndox maanu dàq kenn ku ci ne ba nga dugg sa néeg dugg sa néeg sa yére dafa sepp seppeeku kon nag taw si jooje ak wéet gi ak gëm yàlla ak ragal yàlla ak nong ngaa jaamu sunu borom foofee bu ñu fa xoolee ne xam ne ñun fii bokk war na seetaat sunu bopp bu baax te xam li nu bokk te bañ koo fooyee te xam xam fi nu bokk mooy fan. te li ma wax nit de bu nawlante wut ak moroomam lu mu def mu xeeb ko lu mu wax mu weddi ko waaye jamono joo ko defee am nawle waxam ak jëfam lépp dalay ñor te it da nga ci seet loo xam ne la nga cay taatan dana la amal kon bis bii di bisub mbokk di bisub siyaarante di bisub nemmi konte di bisub dundaluk bokk ndax sëriñ Abdou Latif mii li ma ci wax sam sam baay nijaayam moo ko yebaloon mu dem mm, mbul jëliku lépp ngir bëgg taalub sëriñ Tuubaa tàkk fii tàkk na fi waaye bëgg na mu gën na doole ko bi sama bàyyi demee dem na ñaari yoon xa sëñ bi juru xaw na ko kii waaye téewut yoon ñetteel ba nag mu ne ko rus naa sëñ ma ko ja rek xam naa li mu bëgg lu baax la te la te sëñ ma ko doon bëgg bi mu sëñ bi Latif ñëwee ba nekk fii sëñ bi Latif nekk na fi doon daa tool daa toon doon eh, ci ak taalibe bëgg lu baax ak di ko ñu ci woyof ak bëgg mbokk ak am diine ak ak ak ak nangu koo dox te te di ko seetantal te xiibutan kenn te ku ne ku ne na la fi barab ndax daana ma wax ne ma alaaji ma ne ko Mbàkke maa ngi leen di dénk bu leen xeeb yitey nit ñi yitey nit ñi mooy bu leen weccee borom néegum ñax boroomu terrasse bu leen weccee boroomu téeméer mu junni alaaji maa ngi leen dénk bu leen xeebal nit ki ngénteem wala kéetam wala dëjëm ndax ku am bisam ku ne nga xeebal ko bu ëllëgee loo na xam ne yaa ngi wax ak moom waaye yow waxatut ak yow te doomu aadama ñett bis yi lay am bis bi muy am bànneex muy céet wala muy ngénte wala mu di dëj ciit gi da di ko bokk ak ngénte na nga ko bokk moom dëj bi na nga ñëw bokk moom ba amee loo ko dimbalee nga dimbalee ko daane ma lu gis nga ndawtal yooyu yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci ci ci xew yi tudd tudd ndawtal ndimbal la tudd loo xam ne borom xew yi bokk yi dikk na te mënut a jag waaye la bokk yee dajale bu ñu ko dajalee ba noppi rek suñ ko ci defee ci xew a xew a jag suñu objectif lii jàngale na ko loo xam ne ay yoon yoon yoo xam ne waxtaanee na ko ak man kon ku bëggan bokk la ku ko xamal la te daan ci lox bi nag kenn fekk ko ci ndax ànd maa moom dem sëñ Blaat sëñ Blaat ni ko man de su fekkante ne tey saa sant yi mën naa ko sama jëmm ji fi ma toog di sëñ Tuubaa mën naa ko fab jël la teg la eh, doon li nga doon dinaa ko den kon sëñ Blaat lii ànd maa moom ci këram sëñ Blaat sëñ Blaat seete ko seete ko loolu tawfeexi sëriñ Tuubaa ji nga xëy ne am nañ ko ci dëkk bii te lenn eh, askan wu baax wu tedd wu maandu wu jub bu am lislaam rek mënu ko may kon nan ko sàmm nan koy sàmm mooy nan ponk bokk ki nan koy doxante te di ko waxante te kenn ku nekk bañ a xeeb sa morom te def comme nawle lii daal bu ñu ko defee lépp loo xam ne soxla woon nañ ko suñu diggante suñu borom doon ko am yàlla mi aj sàmm te comme sàmm sàmm yal na yàlla sàmm te taxawu nu musal nu njabootu kër gi doxal nu aajo yi fajul nu itti yi mën fa nu gudd waa nag wër wér-gu-yaram kaat na xel mu daal jàmm yàlla gu nangu teel bu gudd yàq ngërëm borom Tuubaa wa salaamaaleykum wa rahmatullah dëkk bi fii moo doon lii lappe wax moo doon pénc mi waaye bi mu doonee pénc mi itam garab gi dafa doon war ma joo xam ne mu kàlla fi dëkk bi yépp sunu maam yi fi nekkoon bu ñu mosaa am lu ñu soxla fii lañuy ñuy daje waxtaane ko lu ñuy ñaan seen borom ci garab gii la ñuy taxaw lañuy ñuy lan daje ñaan ko fi ba tax na ci buur yi mu njëkkan a dégg yi nga xam ni dañ leen a dégg kenn ñi wuta na ñëw fii ci péncum dëkk bi ñi nga xam ne ñoo leen fi wuutu ten xam leen itam ñu daan jóge njaaree mbaa ñu jóge li di fi ñëw benn buur musta ñemee ñëw ci dëkk bi ci pénc mii ci pénc mu ndaw mee rek ca lañ daayam waaye pénc mii nga xam ne mooy lappe un mooy lappe Ah, menn mag ñemewu foon a ñëw lappe 2 ji ak lappe 1 li ko waral fii li tax ñu naan ko lappe dë ñiy laajte woon lappe te jóge ci njaareem ci tubaab yi bi ñu dikkee di laaj lappe dañoo jëkk ci pénc mee bañ leen waxee lay lappe ñu door a jàll si pénc mii kon mële mooy un mii mooy deux waaw waaye nag mii teewut ci leen mee soqi ko ak pénc yu ndaw yi fi jóge yëpp ah ñi nga xam ne itam yàlla dogal na garab gi li fi mag ñi daa def ba léegi jugu fi daa tolloog nag nekkut ci pénc mi waaye garab gi moom li fi li fi nekkan ba tey mi ngi fi fii nga koy gis nii ak nii ngeen koy xoole mu sampe daanu wan na ba yegg suuf ba tëdd lu mat at waaye mu kàlla fi dëkk bi ñoo dajawaat yëkkati ko bam waat nii mel ni garab gu mos a daan waaye nii ngeen koy gis lii yëpp mos naa daan waaye mu kàllafi dëkk bi ñoo daja xam ne ci garab gi ñu ne nañ ko yëkkatewaat booba léegi nag ñu ngi koy warmaal ñu ngi koy sàmm te jàpp nañ ne la fi nekkan ba léegi jógu fi ah lappe nag moom a ah, li ci lappe wax rek ci nekk at yi bari na waaye ah mag ñi fi nekk moom jaamu yàlla rek lañ xam moom lañ moo doon seen liggéey kon nag ñii nga xam ne nii dañ fee des ñu dellu siwaat fi fekk ñu jóge fi dellu siwaat di warmaal dëkk bi di jeexoo rek xandeer dëkk ba kon dañuy dikk ci cosaan li nga xam ne moo leen fi boole ah, bu yëgu rek ci ay at yu néew luy tolloog fukki at ci ginnaaw lu jóge ci buur bi ñëw na fi di fayu lempo chef ba nga xam ne mooy jóge woon njaareem nit ñi ñëw fii ci dëkk bi di sisir nit ñi ba muy dem day génnuñu dëkk bi daanaka xuru ndiireen wi ca lañ ànd mu ñoog warta ba ñu daanu te benn buur mos na jug ci dëkk bi di fi wax dara waxu maanaam mu di fi sisir nit kon buñ dee war maan lappe ngir garab geeg dëkk bi ah war ma joojee ñoom dañ koo defutoon moo tax loolee dal leen waaye nag yàllaa ngi nuy sàng sutura ba fii ñu koy waxee ndawal buur mosu fee wàcc kenn musu fee xuloo yóbbu sa morom fenn dëkk bi benn baat rekk lañ genn bokk rek lañ lu baax rek lañ dëgg tey moom lañ dëggal bokki jur yi noo ngi ciy dolliwaat ñëw ci barab bu tedd bi di armeel yi fii mooy armeel yi kon liñ leen waxan ne fii mooy penc mu jëkk mi armeel yi firndeel na ko ndax bu jëkk penc ak armeel yi daanaka benn lay doon léegi penc mi fi mu nekkat ak armeel yi boo ko seetee ci 30 mi rek lay tollu barab bii nag mooy armeel yi lappe maanaam cosaanul dëkk mboolem koo xam ni kii sa maam ci askanu maaram nga bokk wala Tayba wala Njaxate sama am nga ci armeel yi barab bii nga gis kilifa yu bare nga fi soxna Dia Touré mi nga xay moo jur soxna Fatou Dia yi taabu Sëñ Tuubaa mi ngi ci armeel yi fii ak kilifa yu baree baree baree bari kon loolu moo tax nu ñëw fii ah, képp koo xaay gis nga ko rek foo foo foo toll na nga def ak ñaan yónnee leen ko ndax ak ñaan moom foo ko mën a ñaane rek sun borom mën na koo nangu moo tax ñu ñu doole ko ci. waxtaan wi ak li mu indi ci dëkk bi ñu jàll ci yeneen barab fot ja nekk euh, euh, maam yi soxna fot ja nekk lu dolliwaat ci barab bii tabax bii ngeen séen nii fii la maam Balla Touré nekk ak sëñ Madou Yacine ak euh, bee nga séen ne fa la sëñ Maxuj ja say bu ñaan nekk barab bi fee ñu miiree ne dana gën fee fee fa la sama maam nekk sëñ Matar Maram ak sëñ ma ma ma sëñ Lappe Modou Xari ak sama baay ñoom ñoo nekk foofu barab bi daal li ma la xamal mooy ay kànneef yu baax a baax a baax a baax a fi nekk jàmmkat yàlla jàng alxuraan rek lañ xamoon xamuñu woon leneen lu dul loolu sëñ sëñ Modou Kaba baay baay daam ma jigéen mi nii moo nekk fii. ñoo ñoo noonu noonu loolu tax nu ñëw fii di di ko wan bokki julli yi ànd ak gone yi nga xay xam nañ ne ñoom ñëpp gone yi ñoom ñëpp seeni maam a ngi fii mbooleem gone gu ngeen gis fii rek ki jur baayam a ngi fii wala ki jur ndeyam wala ki jur maam loolu lan ci dolliwaat. yéen mbokki julli yi daje fii yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ñu ngi fi armeelu Lappé di leen xamal ne li fa dajale mooy fàttaliku mag ñi tëdd fii ay góor yàlla yu doon jaamu yàlla. doon bay di dunde seenu ñaq jàng alxuraan ak jàngale ko loolu rek moo leen fa bàyyi woon barab bii ngeen di seen sëriñ bàll Paate ak sëriñ Modou Yacine ñoo fi tëdd sëriñ Balla mooy magi sëriñ Modou ñoom ñaar ñooñu de tund mbaakol xam nañ leen wegat nañ leen it xam nañ liñ fi nekke woon sëñ Modou Yacine mii mooy rakk sëñ Balla ku fi mosaa wàcc liggéey moo lay jiite dañoo waxal ne képp kum jullee nga tere loolu yi sëriñ Tuubaa ko rafetaat rafa rafa rafaatale woon nag dañ ciy sant yàlla ñun sët yi di ci julli ci yónnent bi sallallahu alayhi wa dañoo daje fii nag di leen fàttaliku di leen ñaanal wàcce nañ fi alxuraan ju takku jàng fi ay xasida ay salaatu ala di ñaan yàlla nangu ñaan yooyu yëpp mbooloo mi fi teew itam ku fi indi aajo yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi tawati yàlla na ko yàlla saafara aaju fu waaj mën indi nag lu mu rëy rëy yàlla na ko yàlla saafara lu kaw njortam bañ ko tàmbalee nag ak suñ jëmmi tey gisuñ ci dara lu lu ñu rëcc ak yokkute rek lañ ci gis ñu ngi sant yàlla bu baax di woo mbooloo mi ñu gën a amaat Pastef ci lii ñu fi indi te xam ne njariñ dong la ndaxte say maam nekkan ci barab doon fa dund doon fa dundal diine dundin wu rafet ban joxan leen fa ay cër ak wegeel bu seeni sët dajee nag tey jii di leen fàttaliku di jàng alxuraan ak xasida di leen ko ñaanale loolu baye boo ñun ñëpp ñu gën a góorluwaat te jàngalaat ndaw ñi te fas yéene tënku rek ci yoon wewu jaaran ñu ngi sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla amuñu daal dañoo mënul wax waaye gën nañoo bëgg lu gën yaatu lii ñu ngi sant sëñ Balla Touré mi sañ Alaaj Touré ak sëñ Xaadim ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na lool yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay te barkeel leen بسم الإله ينمو الهادي waaw sëñ bi ginnaaw buñ eh, sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu ngi leen sant leen gërëm di leen baalu ak yéen ñëpp ci coono ñëw bi ah eh, waañ wi nag yàlla dafa def ñuy mag waaye ñu am cër boo xam dañu ko ci jox ñu war ko cee taxawe taxawe googu itam liggéeyal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala rek moo tax ñu sawar ci lool fépp fu mu àgg itam fépp fu mu àgg itam ah, suñ sañoon Euh, dana àgg foo xam ne dina kaw suñ njort ah euh, suñ sañoon daal képp ku ñëw da nga ndax bis bi bis bu màgg la ci ñun ndax euh, famille Lappé nga xam ne cosaan li ku ma ne ko waaw waaw asalaamaaleykum <laughs> ñoo ngi nuyu tey nuyoo tey ñoo ngi nuyoo tey jéggulu coono yi mbokk yëpp sonn rek ngir bis bi ak jëmmi Lappé di sant yàlla suñu borom ndax dañoo bég lool ndax suñu mbokk yëpp ñëw nañ te ku ñëw it am nga yéenee ñëw kon nag noo ngi sant yàlla suñu borom di ko sante waajur yi ak maam ya di ñaan nag bis bii suñu borom dimbali na ci ba suñu bëgg mu egg fi rek yàlla na ko fa suñu borom eggale ci darajey seexul xaddim yàlla na ko suñu borom eggale ci darajey seexul xaddim ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér suñu xol sedd na guyu moo dam ko askoon na ci lépp rek taxaw nga fi mbaasa ndaw ñëw te ñoom ñëpp am yéene noo ngi ñaan nag yokk te gi yokk noo ngi ñaan yàlla na ko suñu borom Ah, gone yi nga xam ne ñoom ñoo takku rek nag dis ay sër rek takku nag yàlla leen suñu borom dimbale jàppaleen seen liggéey bi kenn ku ne loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën ko barke Seydina Muhammad ndax daar fa amul lu ko gën a kawe innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu a axawaykum kon nañ fetli suñu kóllëre fetli suñu mbok jàppante fayeeku ñoo ngi nuyu tey nuyoo tey ñoo ngi nuyoo tey jéggulu coono yi mbokk yëpp sonn rek ngir bis bi ak jëmmi Lappé di sant yàlla suñu borom ndax dañoo bég lool ndax suñu mbokk yëpp ñëw nañ te ku ñëw am nga yéenee ñëw kon nag noo ngi sant yàlla suñu borom di ko sante waajur yi ak maam ya di ñaan nag bis bii suñu borom dimbalu na ci ba fi mu bëgg egg fi rek yàlla na ko fa suñu borom eggale ci darajay Seexul Xaddim yàlla na ko suñu borom eggale ci darajay Seexul Xaddim ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér suñu xol sedd na guyu moo nam ko askono ci la pare taxaw nga fi mbaasa ndaw ñëw te ñoom ñëpp am yéene noo ngi ñaan nag yokk te gi muy def at mu jot mu yokk noo ngi ñaan yàlla na ko suñu borom saxal gone yi xam ne ñoom ñoo takku rek nag dis ay sër rek takku nag yàlla leen suñu borom dimbale jàppale seen liggéey ba kenn ku ne loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën di ko ëpp